première fois dans l'histoire mu ñëw bundu kër président Ousmane Sonko ñun li nga gën a xam ne amagu leen temps pour ñëw fi ak kër gi leen kër gaa ngi nii ngeen siyaare man pare sama xol sedd na bu may dem sa malien yi nañ jaar sama kaw su ma dee àjjana laa jëm ñaan naa ko ñaan la dénk naa ko Mame Baye Niass dénk naa ko Mame Limamou Laye dénk naa ko Boukounda Ndiassane dénk naa ko Ahmadou Bamba dénk naa ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sonko ku la yéene jàmm ku la yéene ay yàlla tëpp si kawam yàlla na suñu borom defal jàmm ci barke alxuraan kër ci barke Seydina Mouhamed ci barke dara ji la ilaha illallah laakoon naa leen naa leen jumaay Tuubaa Njaareem laakoon naa leen jumaay Kaolack laakoon naa leen Limaamu Laay Bou Kounta Ndiassane laakoon naa leen képp ku baax ci Sénégal président Ousmane Sonko 2024 boo jëlul réew mi man damay génn Sénégal damay dem gaal Mbuur laa dëkk damay jël gaal gi dem naa dee ci yoon bi ah, sama dee bëgg naa boo nekkoon candidat bu bëgguñu

encouragé leen surtout ci liggéey bi eh, jaajëfal leen parce que lii mooy liggéey bi liggéey bi sama bopp liggéey bi nekk ci réseaux sociaux yi baax na nekk ci télé yi baax na waaye taxawal sëriñ bi ci biir quartier yi loolu mooy dooleel sant bi ci loolu ngeen ne kon ñu ngi leen di encouragé di leen félicité di leen gërëm di leen wax nag ni combat bi ñoo ko bokk te bu soobee yàlla. Yeah! mbokk yi ki ngeen gis nii mooy Lamzo le patriote macha allah mu demoon eh, buntu kër ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko waaye eh, di fësal yéeneem daal ak di ñaanal ki nga xamante ni moo di Ousmane muy image yoo xam ne daal cofeel daal kenn xamul lan la quoi allah. Eh, naka noonu tamit ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko kàddoom yi fële woon ca Medina muy kàddu yu am am solo waaye ñi ngi ziar ñëpp di ndokkal ñëpp niki tey jii nag ñuy amal ziar général bi fële ca Tivaouane. Euh, fa tabaarakallah muy Tiwaawan di recevoir ay ay junni junniy taalibe macha allah ñuy ñëw foofu ca dëkk bu sell ba di siyaar Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla taas nu ci markem ñuy ziar ña nekk ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di sàkku ñoom ñaan ñu ñaanal ñu yàlla def ci réew mi jàmm waaw yàlla def ci Sénégal jàmm defal ñëpp jàmm waaw. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi ziar ñëpp luy di soññaat ñëpp rek ngeen way di abonné fii ci NGTV ndax di fi jotee ay xibaar ci tàng tàng bi ngeen abonné activé cloche bi rek da ngeen di jot eh, vidéo bu man dool da koy jot ci tàng tàng bi jaa ngeen jëf.